andi thème boo xam ne euh, euh, thème d'actualité lay nekk en même temps thème de société parce que Sénégal liñ fi nit ñi di dund bari na ñu waxtaanee ko nag mën naa defar moo tax chaque mercredi ak chaque dimanche ñu ñëw rek dañuy waxtaanee thème boo xam ne dina baax ci sénégalais bu ne papa thème baa ngi nii ñu ne détruire son prochain inventaire d'un mal profond. oui inventaire d'un mal profond. waaw il faut le lire Sofia Diatta. détruire son prochain. Oh. deux points inventaire d'un mal profond. dégg nga de jàpp nit. yàq ko ñu ne am yàq léegi nag ñu ngi ci yàq. Mhm. jàpp mbokk yàq ko ñu ngi cim yàq. fekk ab diggante nga yàq ko. fekk waaju baax a baax a baax a baax a baax. joo xam ne sunu borom moom moo ko baaxal nga nekk fa di ko bonal di ko ëlbati di ko ñam njamal fekk ku bona bona bon nga ëlbatiku di ko jubbanti ak di defar ak naan moo fi gën di ko takkal ay ndomboy tànk ci yàq daal nanu wax maanaam jàpp sa mbokk jàpp sa dëkkandoo jàpp sa xarit fekk ñaari diggante ñaari way dencante koo xam ne mën na loo mënul koo xam ne am na loo amul koo xam ne taxawu na taxawaay boo boo mënta taxaw koo xam ne mel na noo xam ne tey moom su sañoon lu mel ne yow te yow soo sañoon mel ne moom nga ëlbatiku di ko yàq ñu ne ëllëg ak si nga tas càmbar def inventaire ah Sofia Diatta doo gis lenn loo xam ne lu rafet lay doon wala lenn loo xam ne lu baax lay doon soo càmbaree ba tas def inventaire inventaire mooy nga topp benn par benn kenn ku nekk sax war na koo def digganteem ak yàlla toog ba saa ngi def inventaire sa bopp xool li nga liggéeyal sa borom xool ndax am nga yaakaar ak xool ndax amoo yaakaar xool ndax lu baax la moo ëpp lu bon la ak ndax lu bon la moom moo ëpp lu baax la inventaire kooku war na jaam bu nekk war na ku ne mhm. sëñ Muntaxa Basiru Faatu ma du mam ba mu toogee ci jal bi donc koo laaj ne ko maanaam sa carrière fi nga jaar mu ne waaw jàng naa alxuraan jàng naa alxuraan bi ma tolloo ci jàng alxuraan ñu ne ko bëgg nga ca jóge mu ne ma jàngi xam-xam mm-hmm. ñu ne ko xam-xam mu ne waaw dégg nga li sëñ tubaax ci xam-xam nee na sol na jar naa sol dàlli weñ di ko dox ba Chine ñu ne ko bëgg nga jógee ci lool nag mu ne ma jàng àdduna mm-hmm. waaw bisu paya taxoon atteekat àdduna la àdduna la jàkkaar lool tey am na taalibe bu ne moom sëñ Muntaxa am na taalibe bu ne tey tey àddina la jàkkaar loolu sëñ Abdou Fatah Fallilou maa ngi lay nuyu baax di la gërëm di la sant bu baax di nuyu baax soxna Ndey Njaay fàttewuma kenn soxna Muumi Mbal maa ngi leen di nuyu bu baax yàq daal ci na nekk tey yàq waaju baax yàq nit ku baax yàq kuy dem yoonam yàq ku toog ci donkaase gi yàq koo xam ne li ko yàlla may mayu ko mhm. yàq ab diggante mhm. yàq ak tas maanaam yàq loo xam ne ak yàqu rek lay doon defaroo ko di ko yàq waaw defaroo ko di ko yàq am ci nag ñoo xam ne ñoo yàq seen bopp mhm. la leen sunu borom jox ñoom ñoo ko di ko fowee di ko fowee ba mu jeex tàkk ñu yàqule am ñoo xam ne ñoo yàq seen bopp daf leen a jox pouvoir yëkkati leen teg leen ci kaw doncaaseeg jotaayu teraanga gi nga xam ne am moo leen gën a yomb ñàkk nga xam ne doon tibbee ndijoor ak càmmoñ ñu xëy dugg ci loo xam ne ñu ne en voulant trop gagner on risque de tout perdre nga xëy rek ñu dégg la ci loo xam ne lu rëy a la yoo xam ne yow su la nee ciix nga taxaw ni wuy sama ndey yàqu naa koy waxee ay yàqu naa déedéet yaa yàq sa bopp aka baax doylu ak a baax doylu waaye nan ko sax nga ne nit ki day doylu ngit ku baax day doylu jant bu la yàlla mayee li nga tollool dangaa war a doylu nga bëgg surplus dama dem ba ca biir laal loo xam ne waroo koo laal musiba fekk la fa wala am ndog fekk la fa nga taxaw ne wuy sama ndey yàqu naa ay waay lii fu ma koy waxee nga xam ne su fekkoonte ne jant bi dafa nekk fii soo sañoon mu gaaw suux te fekk yàqu ko yóbbee sa bopp yàq sa bopp waxuma yàq de dafa am yàq yàqu ak yàq sa bopp. ak ñi yàqalaate pour ñoom ñu feeñ. waaw yàq. Mm. yàqalaate ak yàqu. Mm-hmm. dafa am waaw. Mm-hmm. yaa yàq sa bopp. yaa yàqal diw. yàqalaate rek nga fi nekk ñett ñii laa la wax yàq ak yàqu ak yàqale. Mm-hmm. yàq yàqu ak yàqale yàqu gi yaa yàq sa bopp. papa nit mën naa yàq boppam. barke borom Touba. ci naka jox ma ci benn wala ñaari exemple. am na léegi nii nga solo nii ban lay xool ci télé bii nii. Mhm. di la gis am ñoo xam ne ñu ngi naa xoolal jaune bi mu sol. xoolal li ñu ko mixé xoolal bleu bi bi nga xam ne moom na nga ko ñëwee. Mhm. soo génnoon léegi dugg fii. Mhm. am na noo xam ne soo nu soloo soo génnee koo jub mu daw la. dama laa cax. dëgg la papa. nit dina ëlbati ko taxaw suñu borom jox ko loo xam ne dépasse manqué wu ko kër gu rafet manqué wu ko am na ñaari soxna taaxum kaw la dëkkee lu ko neex am fu ko neex dem su ko neexee dugg ci avion yi lu ko neex kii mu laal lu mu warta laal loo xam ne laalu nu fekk ko ca trouver ko la dans le sac nga xam ne dootul mën a wetti ndeysaan waaw yàq na boppam ci këru àdduna te kenn xamul gan géej lay seteeti ci këru àdduna ci réew mii nu toll ak Sénégal gi ni mu dansé ak Sénégal gi ni mu mel nga xam ne ñu am jot ñoo ci nekk ñu am jot ñoo xam ne seen ginnaaw clavier nañuy toog mën nañuy xëy di bind suba ba ngoon ay waxambaane yoo xam ne amu amuñu am xëy Fall ñëwaat ci nga ni <laughs> nga ni Sénégal ñu fi ne. nan dem nan dem ci. non non non non may ma lii may ma lii bul toog nga ni senegal ñu fi ne ñu lan. <laughs> waaye soo ñu am jot ñoo fi ne. laa ilaha illallah seen dama ne ñoo xam ne ci seen ginnaaw clavier dama am na koo xam ne daf may saaga ndey ba ba léegi xaw ma lan laa ko def. daf may saaga rek bis bu ne mu saaga ma ndey ñetti yoon ñeenti yoon ba mujj damaa taxaw su wootee gune yow war naa la ko. bu baax day woote est-ce que du woote waat léegi ah. waaw ban bayre bayre ba ci dama saaga ndey donc lii suñu bindee détruire son prochain man suñu jàkkaarloo su ma saaga ñu ma xam dinañu xam ne àddina day tukki barke borom Tuubaa papa bu ñu bindee bu ñu bindee détruire son prochain donc dañ ciy boolewaale aussi nga yàqal sa bopp waaw donc mooy li ma la yàqal sa bopp dañ ko ci boole nit dina yàq boppam mhm. déedéet du yàqal sa bopp yàq sa bopp da ngay yàq sa bopp mhm. waaw yàq sa bopp yàq sa bopp judd fu baax ñu wóol la fu baax nga yor ndombo tànk gu baax ñu teg la fu baax nga fëral fu baax a baax féete bu baax a baax ku ne ñee la ku ne su sañoon mel ne yow nga koy yàq sa bopp. dëgg la. ba koo tudd ne ko diw mën na la bëgguma bokk ak moom. d'accord léegi sa doom fu mu génn ci mbedd mi day xat. du bëgg a feeñ mm. su sañoon dootoo ko jur dafa judd ci yow rek waaye munu ko. d'accord jeeg ja ngay denc képp ku ci sañoon da ngay tas dootoo nekk ak moom. Mhm. Mhm. nga toroxal sa bopp. d'accord yàq sa bopp. ëlbatiku maanaam daal ni ma ko waxee ki ñoom xam na nañu ñoom ñoom ñii ñëw ñoom ki négal ba na ñëw. negal ba kii. jeex na a en attendant ñu bàyyi la aussi nga jaal nga jaal bu baax Mona Lisa Diop. ci ci waaw kii moom defe naa euh, magu soxnaam wala rakku soxnaam. magu soxna magu soxnay Benoît magu soxnaam moom prospère. kii moom.